bi ñuy andi sëñ bi ba dugg Touba ñi nekk ci auto bi wax nañ ñi ñëpp dégg nañ sëñ bi wax bismillah bañ koy dégg biñ koy dugal ci biir barab bi dégg nañ mu ne bismillah bañ ñoom ñëpp ñu di ko dégg biñ tollee ci delloo suuf si ci biir foofu diggante boobu ñoom ñëpp dañoo taxaw kenn ñëk ñeme wuta ñëk a jël suuf si di sotti sëñ bu Buso moo jékki-jékki daal ne ha xalaqnaakum daal di sotti wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan oxra bi mu tollee ci loolu am na ci gaañi koo xam ne xam naa turam daa daal di xaaju ba wax lu ëpp ginnaaw bi mu siwaat di tuubal sëñ Mbàkke ne ko maa ngi jéggalu ci li ma wax keroog waaye nangam ak nangam sëñ Mbàkke ne ko bi sëñ bi naan ma bañ leen di waajal tey taxoon jàpp naa ne yaa ngi koy dégg biñ taxawee kenn ñemewutu njëkk lool def loolu loolu ci seeni roow la doon waxee ñoom ñu wàccaay ko waajtaay wu sell woo wax nañ ni sëñ Mandoumbe Xabbaan moom la loxo mujj ci sëñ bi mu mujj laal jëmmi sëñ bi biñ ko waajalee ba noppi nag lañ doog a dellu siwaat njaareem sëñ Mad Lamin Jóob Dagana nee na bi ma xëyee rek laa daje kenn ci murid yi mu ne ma biig de damaa gént gis la naan la ana sëñ bi nga ne ma wama muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul nee na te boobu kooku bi may wax loolu yëgagul xew-xew bi dane ma ana mom ana señ bi neena mané ko jallal ci bir <laughs> neena bimu bi rek la dal di gis barabu señ bi Touba bobu ñaari yuux mo am ñi dañuy yuux ñi di sar xolé ndax jamono yoy ci semaine bobu bari nañ ñu joggé Touba ñëw ñëw njareem ñu ci bari bu ñëwee señ bi naan leen fié ki fan da ngeen am gan da danaa leen gané ci Touba ñi dégg ne señ bi ñëw na ñom dañu japp né ngan googu la dañoo jàpp ne bi da ñëw ci anamu anamu anam anam gi anamu zahir ñoom dañ doon sarxolle jàpp ne loolu la ñi ñi ci des yëpp ko ci melowee ñoom di yuuxu biñ àggee njaareem nag ci la boroom daaru wax sëñ Cheikh Fattako ne ko demal woon ma sa yaay soxna Fattako Jóob nee na sëñ Cheikh Fattako gis nga foofu it mat gi mu fi defaat bi mu demee di woowi soxna si gis nga loolu xelam xel xel mu rafet la xam ne ne soxna si lañ koy wax moo koy jottali njaboot bi nee na ci diggante boobu la daa gaaw sakk sakk teen yi ba kenn du ci mën a lor doo ko woo soxna fa tàkko mu ñëw soxna fa ko bi mu ñëwee borom daaru daal ne ko sa waaja de moom lañ moo moom lañ yóbbu Tuuba moom lañ yóbbu moo fi bàyyi ko nee na mu ne ko tubaab bi dañ koy yóbbuti ne loolu ko daal di wax ne ko bi dañ koy yóbbuti mu ne ko déedéet daa wuy ji boroomam mu ne ko anamu mu ne ko dem na Tuuba nee soxna si daal di bëgg a tàmbalee kii mu ne ko ah boo defee nii ñi ngay fekk lu ñu def nee na mu daal ne wax teg soxna Fatta ko moo ko wax waa sàq yi waaye naka mu leen ko wax rek kenn ku ne foo xam fa nga daal di jëm yuuxu yi daal di jib fekk na booba tubaab yi ñëw nañ ba wër kër gi loolu mooy xew-xew bi nga xam ne moo am ci ginnaaw sëñ bi dénkaan bi waaye xew-xew boobu moo ci topp